diwaanu Ziguinchor ab plan la ay pexe yoo xam ne maanaam dañu ko laloon ngir nag sàkkal pexe ki nga xam ne maanaam moo njiitul Pastef di Ousmane Sonko loolee nag kàddu yu Bassirou Diomaye Faye la ba tey moom njiitul cadre yu Pastef yi daat nay wax ne mbir mi daal ba mu xewee maanaam coow li doxoon diggante Doudou Ka ak Ousmane Sonko dañoo jàppoon ne maanaam Doudou Ka daal dafa bëggoon ñu investir ko ci fi nga xam ne daal mooy Ziguinchor ñun daal noonu lañ ko jàppe woon waaye nag ndeke mbir mi daal maanaam nag dépassé na loolu ndeke mbir mi ay plan la yoo xam ne dañu ko laloon ngir nag naxee li nga xam ne mooy projet bu Pastef waaye nag loolee du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg moom Bassirou Diomaye fay nee na nag yàgg nañu leen a alerté ne Ousmane Sonko dañu ko bëgg a posone mu dee waaye nag ñun jot nañu ay xibaar yu leer ne lii nag biir la moo xamante ni daal dañu ko programmé woon tentative d'assassinat waaye nag ñi nga xamante ni daal ñooy patriotes yi bokk ci parti Pastef léegi fu Ousmane Sonko di dem militant Pastef yi ñooy yor li nga xam ne maanaam mooy sécurité même li nga xam ne mooy réunion privée yi maanaam patriotes yi ñooy yor sécurité Ousmane Sonko ñoom waa Pastef nee na ñu daal kaaraangeeg Ousmane Sonko léegi daal ñoom danañu si jël seeni matukaay daal di koy protéger ndax lii nga xamante ni daal moom la ñuy wax saa su nekk maanaam dalul xel yéen a kaay gi délibération daal di xëy nag ci CREI CREI bi nga xamante ni liggéeyam moo nekkoon maanaam mu daal di nag traqué ñi nga xamante ni ñooy yor alal ju léwul waaye nag CREI boobee nga xam ne fa la ñu yóbbu woon Karim Wade CREI dafa pande maanaam juróomi at a ngi nii CREI demul cëng dikkul mbay laar depuis 2016 maanaam lu toll ci fukk ak benn ci ay magistrat lu toll si juróom-ñaar ci ay suppléant lu toll si juróom ci ay greffier ñoo nekk CREI yi juróomi at a ngi ba léegi ne ñu dara ndax CREI si booba jamono ci amutub liggéey CREI yi dafa paana yéene kaay gi ne na projet yi nga xam ne waxoon nañ ko fi ngir nag indi ay yeesal si CREI yi dafa tàbbi géej nag dañu koo fàtte ci biir tiroir yi yéene kaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu collectif ñoo lànk ni ki démb nag amal nañu am marche ngir nag naxarloo fitna nga xam ne mooy Macky Sall ñaawlu bu baax a baax ni nga xam ne moom la yore réew mi ak ni nga xam ne moom la ko salfaañee ak ni Macky Sall nag di jaayee doole mobilisation bi nga xam ne collectif ñoo lànk daan nañ koy def ñoom nag nee nañu si boppam préfet bu Ndakaaru moo ko saboté yéen kaay gi nee xam ne ñooy leader politique yi démb nag ñëwuñu woon ca mars di Walf Fadjri daan nañ ci état bu nan la yàqee mars bi nan la ko ci la journal bi di Walf Fadjri daal police ñoom jamono ji nag pare nañu ngir déposer seen caution yéen kaay gi de la sax xëy dañu xibaara naan ñu Moussa Baldé ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum agriculture ak wàllum équipement rural moom la ñu désigné candidat Benno Bokk Yaakaar ci commune bu Kolda bu ñu sukkandikoo nag ci lu toll ci fukk ak juróom ci ay parti yoo xam ne ci Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk ñoom nag dajee nañu nee nañu daal seen candidat maanaam mooy Moussa Baldé ci commune bu Kolda yéen kaay gi di ko Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum élection locale yi ak investiture benn bokk yaakaar si diwaanu Ziguinchor le choix risqué de Macky loolu la ko journal bi xëy bindee nee na ki nga xam ne mooy Abdoulaye Baldé wala Doudou Ka wala Benoît Sambou wala Seydou Sané ñii ana kan la si président Macky Sall di tànn attention maanaam Macky Sall bu juumee rek musiba am nag lambay ñaaw yéen a kaay gi di réew mi ko di cee xëy seeq waxtaan na tàggkatu Seydina Mohamed bi di Aboubacar Samba daat nay wax ana lan moo ko dugal maanaam ci musique religieuse wax a jamono jii ni mu koy doxalee nee na nag bëgg gi mu bëgg Serigne Babacar si loole moo ko ci dugal ak nag bëgg gi nga xam ne moom la bëgg nag Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moom Babacar Samba daal nay wax nag musique religieuse solo si nga xam ne am na ko ci confrérie tijane yéen a kaay gi dee sat xëy dañu xibaar naan ñu Premier League ca Angleterre foofee nag xëccoo bu méttee moo fa am nag ngir toog nag ci donkaasi gi maanaam toog ci bopp classement bi diggante Chelsea Liverpool Manchester City ak Manchester United yéen a kaay gi di sunu lambo nee na combat bi nga xam ne dàqaat nañu ko ñi nga xam ne ñooy amateurs yi ak supporters yi ak